yooyu ba jox ko question yooyu damay woowee oustaz Pape. voilà oustaz Pape. ala kulli su man la bëgg. voilà léegi oustaz damay téye micro bi comme ñoom. voilà ah mais ñoom leen rek ma naqari ci ñoom. non leen commenté boo leen nuyoo dinañu nuyu Macky Sall. Youssou Ndour doomi Youssou Ndour ji Nelson jabaru Bouba Ndour ji waa kër Abi Ndour yi ma lii ma naqari ci ñoom. ok léegi léegi waaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay xaaj xaaj xaaj Mamadou. voilà xam nga ni laylatul xadri léegi mu jot. waaw te léegi nag. Euh, dañu bëgg nga wax ñu ngëneelu laylatul xadri. waaw xam nga laylatul hmm, hmm, yi am ngëneel yi am ci laylatul xadri. waaw euh, fa <laughs> euh, tabaarakallaahu. ginnaaw bi ma xalif généraux yi. maa ngi nuyu ñi nga bokkal plateau bi sama jigéen mais El Hadj ma lay noppi. sama jigéen Mary Bey ak soxna soosu waaye tur bi lay fàtte soxna. soxna Kebs soxna sant Thiam. xam nga Layla. Uh-huh. mooy guddi. Uh-huh. xamoo leen woon loolu. Layla uh-huh. mooy guddi. moo tax ñu ne Laylatul Xadr. Xadr te ku ne xam na ni guddi googu. moo gën guddi yëpp. ndax layla mooy guddi. xadr mooy dogal. donc jour boobu la suñu borom di dogal. moo tax ngeen di dégg boroom xam-xam yi naan laylatul xadr xayrul. min alfi shahri macha allah loolu li muy tekki mooy. guddi googu moo gën junniy at. comme bis boobu la suñu borom tànn pour jël ay décision wam moo tax bis bi neexut a xam maanaam du n'importe kii moo mën a natt wala jàpp ni bis bii mooy laylatul xadr macha allah mm-hmm. donc ngeen jàngee ci mm-hmm. layla mooy guddi mm-hmm. xadr mooy dogal uh-huh. et guddi googu fa tabaarakallaahu moo gën junniy guddi alaa kulli yàlla ñaan yi ñaan yi oustaz guddi googu. Eh, yaa ngi may yow mbaa doo jël sama place. <laughs> <laughs> toog nga sama toogaay yaa ngi wax ni may waxee. ah ah ñaan yi ah, ñaan yi oustaz. damay ñaan yu ah, baax ci guddi dañu ci dañu ciy baaxee rek <laughs> parce que da gis ku nekk danaan da def temps de wird di lii ak lii ban mooy bi nga xamante ni moo gën moom moo ci gën ban ñaan moo ci gën ban moo ci gën waaw li ci gën mhm. yéen a ngi koy yéen a ngi reetaan mais jàpp leen ni lu am solo laay wax. est-ce li ci li ci gën a baax. ci guddi laylatul xadr mooy salaatul fatiha. macha allah mm. salaatul fatiha moo ci gën a baax. Mm-hmm. donc ku ko sàlloo ci guddi googu. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, munoo xam sax euh, ngënee li ci nekk. léegi nag yàlla may nañu na. may nañu euh, bëri nañu ay kilifa diine. Ah, bëri nañu ay mag yoo xamante ni ku ci nekk am na noo ko nattee. léegi nag noonu ñu ko nattee. même bu fekkee bis yi dafa uute. par exemple waa Touba yi. Mhm. bis bi ñu tànn. Mhm. def ko dafa baax. nga dem itam ci beneen ëtt bis boobu ñu tànn. Mhm. def ko parce que mag ñi dañuy àgg foo xamante ni ci yàlla. daf lay yéem. et xel kese wala doomu aadama kese mënu ko maîtriser. mais en tout daal guddi la boo xamante ni foo dégg ni ñii ñu ngi laylatul xadr. profitool nga def ci say ñaan. parce que moo gën ju moo moo gën euh, moo gën guni ju guni ju. <laughs> <laughs> Ah, junniy at léegi léegi Mamadou xam naa question yi moo gën junniy at donc fa tabaarakallaahu defe naa loolu moo nekkoon loolu moo nekkoon seen question question yi ah? est-ce que duñu am bu amee quelques questions rek pour internautes kon yaay Mamadou Ndiaye yow <laughs> Ndiaye jóge sama place man mënuma télé yi di ma toppandoo yow nga bëgg sama place ah kañ laay kañ laay libre man ah, ah non laay kañ laay ma may ma féex